ba mu dóoree booy bi jaasi ji ci ginnaaw la ko ko dóor dafa jàpp mbagg mi mais dafa xar bopp bi xar ko nii ba nu koy sangu tey di ko denc ba nu koy sang booy bi ay mbuus lan mujjee jël lëmas ko ci kanam gi di ko def nii pour mën koo denc denc bu rafet ndax bopp bi la xar jàpp ci mbagg yi léegi nag police su jannatu da koo làq waaw police bi da koo làq léegi lu nu bëgg mooy ah police bi danoo bëgg mu wan ñu Abdourahmane Ndiaye fotol ñu ko ñu xàmmee assassin yi na ko photo mu génnee photo nit ñi gis ko xam ne raykatu nit la bu loolu jàllee gars yi ah ñuy jéggalu pël yëpp parce que nit ñaa ngi saaga pël yi naan pël du nit pël du nangam ñëpp ay nit lan waaw olof ni mu amee ñu bon noonu la pël yi amee ñu bon ak ñu baax séeréer amee ko noonu ñi ngi jéggalu pël yi ki ko rey du pël damay ñëwaat ci communication bu baax bi parce que version yi ngay dégg ñoo bëri mais dama mujj obligé sa jël sama téléphone woo ay mbokkam jot magam magam bu bokk ak moom benn deret moo ma gi ne ma Mourtada Diop la tudd waaw jàmm gën dëë la dëkk sa mbokk la ki ko rey du pël saaru séeréer yooyu la ndax Abdourahmane Ndiaye lay wuyoo jàpp nan ko mu ngi ci police bi falaa laa jóge police yaa ngi koy làq nan nu jox fotom nag ñu mën koo affiché booy bi tey ban koy denc ay mbuus nan ko lalal pour bañ yaram bi tasaaroo ndax ci jaas ji fii la ko dóor jàpp bopp bi xar ko pël yi ñi ngi jéggalu ñëpp waaw salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum gaa yi Adama du nit live bi ma defoon démb naan damay laajte ay mbokk waali xanaa waali amul ay mbokk ay mbokk Aziz rek la ñuy gis mbokk waali yi génn nañ tey def nañ interview wax nan nee na ah waali xamuñu woon fu mu nekk yaa ngi dégg dañ ko xamuñu woon fu mu nekk waaw euh, xamuñu woon ci lan la nekk xamuñu woon na sax mi ngi Aziz ni mu waxee nag mel na ne kuy Aziz kuy kuy kuy xalab Aziz naan waaw ah, nangam nangam yéen amuleen lu ngeen wax Aziz seen doom un la dem un la am dem yaa ngi dégg yéen lijjantiwu leen ko xamu leen ci ci ñu muy fréquenter bu la tàggoo dem liggéeyi sax ah nga war a xam fu muy liggéeyee ci lan la nekk dem seeti ko defu leen ko bu du woon dee du ngeen génn te du ngeen ko lijjanti bàyyi ba dee am na ngeen jaay affaire kilifa génn naan waaw suñ doom nangam nangam nangam nangam nii xamuñu Aziz xamuñu nangam lii am am na yàllaa ko dogal am na ba pare yéen li ngeen mën a def moom ñaanal leen ñoom ñaar ñëpp. kee pël la kii pël la ñoom ñaar ñëpp ay doom lañu yaa ngi dégg mais fii moom ba leen fi jaay yëfu kilifa ndax la ngeen waroon a def seen devoir ba ah, ba waali di dund defu leen ko loolu Aziz moo ko def kon yéen amu leen lu ngeen wax jàmm ak xéewal mbokk yaa ngi nii dem leen déglu interview bi dakaar Buzz jërë ngeen jëf kii mooy frère am